Sénégal waxtaan bi kum jël na dogal moom njiiti réew mi Macky Sall ne du bokk ci wote 2024 yi allah source a yéene kaay ñu ko xamal yéene kaay bi na faa xam ay xibaar yu wér te wóor ne njiiti réew mi Macky Sall fa jël dogal na bàyyi na troisième mandat bi du bokk ci wote yi di ñëw lépp ngir bañ fitna ci réew mi Abdoulaye Daouda Diallo nag moom la nar a samp mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar waaye fa mel ni xam na ñu bëri xànduñ ci de xam na tamit yeneen xibaar yu jib ne Amadou Ba premier ministre mooy nekk seen candidat ba ca sax Aly Ngouille Ndiaye la mel ni ku naan leen daal njiitëram Macky Sall moom la ñu war a falaat te ñëpp ci war a taxaw ñuy wax nag naan na fi Macky jógee duñu wax mukk ci wàllu bilan ndax xam ne lim liggéey ci réew mi moom jiit réew mi daa nga kenn du ko jiix ma ko waxee ca lii yéene kaay Robert Bourgi moom fa validé d'accord na ci ñetteelu mandat njiitëram Macky Sall nee na xam na ci sañ ko waxee ci turbine yéene kaay critique yéene kaay na leen la wen cinq soin ndax ci la njiitëram Macky Sall di wax ak askan wi su boobaa xibaar yooyu ngeen di ruumandaat danañ xam ndax dëgg ko seetal opposition bi ku jégi yeewi fa ñoo fas dem xamal ndaje ca buntu kër Ousmane Sonko ndax dindi lañ ko bloqué loolu la 25 lañ ko nar amal la ñu amal ñoom ordre des avocats mooy mbootaay avocats yi ci Sénégal mooy fa sàkk ci état bi ñu dindi Ousmane Sonko ma ñu bloqué buntu këram ndax ay avocat am mën a gisee moom loolu àqam ak yella foom la kenn war a ko ko xañ léegi ko yéene kaay ñu ko xamal foog su populi ne avocats yi Sénégal yi kay fa mu ngir mu tegu ci yoon bu fekkoon nag seen ak doxalin l'observateur moo ñu ko xamal <laughs> leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi nañ le quotidien yéen a yi a liggéey ci wàllug ONAS ma nga ca biir l'observateur ja mooy ne njiitaram Macky Sall fa dem ci réewum Russie mook ay ndaataangoom yu Afrique ngir dox fa tànki jàmm la mu wax nag Poutine la dépêche yéen a kaay ñu ko xamal libération réaction mel ni ku naan ko njiitëram Macky Sall kay fa wax na ko fa ñoo ñëw fii pour déglu la bëggit nga xam ne Afrique jàmm la bëgg sa diggante ak Ukraine le peuple yéen kaay na Poutine tamit tontu na njiitëram Macky Sall laas yéen kaay na Poutine fa rafetlu taxawaay njiitëram Macky Sall ak ñam xàndal le soleil ne Poutine kay nee na noppi na ngir waxtaan ngir jàmm xam le peuple yéen ne kon Afrique tànki jàmm yañ doon dox xam nañ ca ndam Dakar Times na ko jegee nag diggante njiitëram Macky Sall ak Poutine neexut réewum la <laughs> neen lu leer ba yegg ca nañ ñi mooy ne tey journal yu bëri fa ñoo xëy xamal benn éditorial lañ ca bind nag mooy su fekkente ne fa ñoo bëgg a dund ñun journalistes yi jot nañu jóg taxaw ngir ñàkkanteeg état bi lu ko moy fa ñuy faagaagal de l'évidence bés beeg lii yéen kaay ak journal yu bëri fañ ko xëy fësal regard yéen kaay nag moom fa caa gën ràññeeku ndax fa caa yokk leeral ne waxtu jóg jot na ci mbolam taskatu xibaar ngir ñu wane suñu ngor bañ lu ko mooy fa ñuy def ay jaam de kenn dootu fi wax la mu wax moom soxna Mimi Touré mooy fitna ji fi amoon ci réew mi fa cee tuumal ji tëra Macky Sall yàq na daru réew Sénégal ndax lu ji njaaga mooy njaag fitna yëpp dara andiw ko lu bëgg te loolu du fi xamee tey bu demee ba réewum Sénégal ñu koy tudd ca CPI ëtti attekaay yu bitim réew ya xam nga ne loolu moo ne suñu démocratie fa deltu ginnaaw ba mëpp ma ngi ko waxee ci indépendant yéene kaay su du quotidien ne Mimi Kay fana ñaxtu yi ak ñi fi faat yépp njiitëram Macky Sall wax na ci responsabilité am nee na nag CPI xam na sañ-sañu lañ bët faat Sénégal ak jël ay kilifa yóbbu leen xatte leen Seydou Gueye bu APR mais a ni ñu xamal ne Guinée Conakry ndax seen doom yañ dogoon delloo nañ leen ko xale yi ñu jàppoon ci ñaxtu yi jëwriñ ji nee na bàyyi nañ leen rawatina nag mineur ya tàggat yaram Sénégal ak Bénin fa ñoo jël jaaxaay ku nekk dugal sa morom benn ba tax stade yéene kaay ne Sénégal gi ñu gis mu football keroog ak Bénin est mën naa jaaxal Brésil bi ñu war a dajeek l'observateur ne lu mësta am ci footballu Sénégal diiwaanu Jurbel ñoo ko xamal division régionale ñeenti équipe ñoo fa doon football benn équipe ba fa dóor morom ka 17 0 beneen équipe ba dóor morom ka mbata basket lépp ci ay mayante lii fa ñaaw te gàccale ci football bés bi yéene kaay moom fa xëy amal jàngat ci jàngoro ji ñuy wax déropanositose feebaru deret la yaay bu ko sa doom xam fa ngay nekk ci jaaxle ak coono bi ci gën a garaaw nag mooy SS bi yéene kaay bi na ab xale bu jigéen a jàng ndeysaan ñett ñi mooy bés bi ñuy jagleel jàngoro ji ci àdduna bi yéen kaay bi na def ay test xool xale bu jigéen bala nga ko takk jabar fekkee fa am as yow nga xam as ñaareel su ngeen takkantee rek seen doom fa koy xam de la xam ca xàllab Tambacounda ba di lu ñaaw lool l'observateur moo ñu ko xamal yow seetal benn waaye bu doon liggéey ca foore ba xàll ba fañ ko faa fekk jàpp mbuqi ko takk ay loxom ca gannaaw ga ray ko sànni ko fa ca xàll ba jël motom ba dem ak moom waa ko def nag fañ koo teg loxo yéen kaay bi boo moytu nag giir ak moom lañ ko nar a bu doon xàtteeb lislaam la fañ koy ray mu jeex dootu rayati nit de ci maa tey